du Sy Albert maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Awa. yow analyste politique nga ñuy wax euh, jamono ji euh, ci cour d'appel euh, bu Dakar bi nga xamante ni daanaka delloo na Ousmane sunko ci liste électorale yi loolee mu mel ni mbégte la ci waa PASTEF. waaw mbégte bu mag la ñoom ñëpp loolu dañ lañ doon xaar muy avocat bi muy. militant Pastef muy Ousmane Sonko ñoom loolu lañ doon xaar bés yi euh, yu euh, yi démb ak bark démb amoon nañu confiance mais tey jii moom décision bi euh, joxaat na leen doole am gën am nañu gën am nañu yaakaar Ousmane Sonko dina dinañ ko inscrit ci liste yi dina def parenage dina nekk candidat loolu nag seen ndam la seen ndam avocat la aussi ak euh, justice. Mhm. alors waaye fi mu toll nii est-ce que euh, blocage du am tamit ndax gis nañ ne maître El Hadj moom annoncé na ab pourvoi ab pourvoi euh, en cassation goo xam te ne jëm ci wàllu boobu. waaw lu mën a am la comme ni ko waxee El Hadj Diouf ci avocat nguur gi la bokk nee na dinañ def recours ñu defee recours nag dañuy dem ci cour de cassation. mais loolu nag euh, lu daloon euh, Ousmane Sonko bi ñuy euh, bu tribunal Ziguinchor jox ko dëgg soo moytul loolu moo nar a am am na fii dëgg wante bu dee am na recours soo moytul direction chargée des élections du jox Ousmane Sonko fiche de parrainage et Ousmane Sonko mandataire bi bu jotul fiche bi du mën a def parenage bi donc loolu gàllankoor bu mën a bu mën a am la léegi nag est-ce que dinañu def recours Euh, est-ce que direction euh, chargée des élections dina jox Ousmane Sonko fiche fiche de parrainage loolu moom su jotee dina mën a participer. Mm-hmm. mais su jotul. Euh, loolu gàllankoor la nar nekk pour Ousmane Sonko. Mm-hmm. waaye jamono ji gis nañ ne li jëm ci wàllum parrainage daanaka jeex na ci wàll boobu est-ce du doon jafe-jafe yi tamit. non Ousmane Sonko moom mënatul am parrainage citoyen bon lu ko dese mooy ñaar mooy de de euh, parrainage député yi wala parrainage élus locaux yi mooy maire yi ak président conseil départemental boobu tamit pour maire yi ak conseil départementaux yi yaakaar mu mu jël yoon boobu yoon bi ko dese bu gën a wóor ci moom mooy mu am parenage député yi am na fukki fukk ak ñeenti député ñu euh, bokk ci Pastef ñooñu mën nañ ko para parrainer defe naa daal euh, parrainage boobu moo gën a yomb ci moom moo gën a sûr aussi que euh, muy dem wuti ci parrainage maire yi wala président conseil départementaux yi. Mm-hmm. lu jëm ci wàllum Bassirou Diomaye Faye tamit nga xamante ne moom la ñu tànnoon mu nekk plan B Pastef. waa Bassirou moom def na parrainage ba pare d'après lu ñu wax am nañu seen parrain donc dara terewul Bassirou Soumaré euh, Bassirou Diomaye tey ji déposé candidature am bon defe naa mu ngi ci yoon boobu moom amul benn décision bi nga xam ne mën na ko tere continuer ba déposer dossier am donc yaakaar na moom dina déposer dossier am ci conseil constitutionnel euh, Sonko aussi lu ci mënti am ñoom dina suñu amoon fiche bi moom tamit dina def parrainage am dem déposer donc boobu moytul euh, su dee en tout cas Ousmane Sonko amul gàllankoor euh, Pastef dina am au moins ñaari candidat yooyu dinañu déposer seen euh, seen candidature. mu mel nii tamit membre commission contrôle bi jëm ci wàllum parrainage ñoom xam nañ leen ñi nga xam te ne ñoo war a taxaw ci jogante njiitu réew mi atum 2024 waaw commission boobu conseil bi euh, taxaw na taxawal na euh, commission boobu commission boobu nag dina dimbali conseil constitutionnel ci euh, organisation élection bi parce que commission boobu moo nar a saytu candidat bu nekk dina xool dossier am est-ce que pièces yi mot na su motee commission bi dina ko jox conseil constitutionnel mais su ce dossier su motul soo moytu ci commission bi ngay euh, candidat bi foofu la nar a yem. Euh, leneen lu jëm ci euh, conseil constitutionnel yi tamit lan la ñu war a xaar ci ñoom. ah conseil conseil moom moom mooy juge. bu bu ñu paree ci dëgg ci ku nekk am sa dossier conseil constitutionnel rek moo moo moo mooy mooy mooy jël décision pour ne kii dina bokk wala kii du bokk. donc loolu nag responsabilité bu rëy la ndax dina xool exa euh, dossier bu nekk dina ko xool dina xool aussi est-ce que respecté nga loi de parrainage bi est-ce que respecté nag pièces yi nga yi nga xam ne kandidaa euh, war na ko am donc conseil bi euh, rôle bi mu war a jouer moom le le rôle bu am solo la ndaxte moom moo kot moo mën a publier liste bi liste bi nga xam ne jàpp jàpp ne ñii mën nañu participer. donc loolu responsabilité politique bu rëy la bon moom aussi moo war a rassurer moo war a rassurer candidat yi mu bañ a am daal coow su suñu xamee liste bi mu bañ a am coow coow moom baaxul ci conseil constitutionnel. Mhm. mu mel ni yi tamit euh, war na dem ci audience spéciale ci cour suprême euh, ci euh, mbiruma Ndiaga Diouf ñu nam ko amal ñaar fukki fa ak ñaar ci weeru décembre lan mooy ay risques yu Barthélémy Dias ah risque bi mooy bu bu amul dëgg bu amul dëgg ba mën nañ ko mën mën mën na jóge ci bopp nguuru euh, ci ci euh, bopp mairie Dakar euh, ville de Dakar donc loolu moom moom ñaanu loolu mais du mën a am la comme aussi mën nañ ko setal buñ ko setalee nag defe naa moom loolu loolu moo ko loolu lay seet pour que mu bañati amati dossier bi nga xam ne mu ngi ci justice mu ngi ci loxo yoon mm-hmm. pour mu mën a def campagne électorale pour Khalifa pour ëllëgam aussi politique euh, yoon la bëgg xàll bon bu amee ndam loolu moom lu baax la ci moom ak pour euh, taxaw mais bu mu daanale soo moytul dinañ ko di dindi ci boppu mairie de Dakar loolu nag baaxul ci carrière politique euh, Barthélemy baaxul aussi ci élection pour Khalifa Mhm. rebondissement bi euh, jamono ji nga xamante ne euh, li des euh, ci jogante ñi ci réew mi bëreetul pour yow lan moo ko waral. ah non mën nañu xalaat ne que tey jii Barthélemy amatul problème ak ministère bi nga xam ne moom moo yore mairie yi bon ñu ngi liggéey normalement amul benn gàllankoor diggante mairie Dakar ak ministre bi bon diggante Barthélemy ak taxaw ak Khalifa ñoom ñëpp. amatuñu benn problème ak Macky Sall wala majorité présidentielle donc mën nañu wax ni que situation bi euh, calme na Barthélemy amatul problème ak euh, nguur gi wala gouvernement <coughs> wala majorité présidentielle. Mhm. léegi nag moom lu muy xaar mooy que euh, buñ ko setalee dina nekk maire dina aussi continuer campagne électorale bi dina mën a préparer sa carrière politique. Mhm. ci wàllum euh, ci wàllum candidature Amadou Ba yi tamit lan mooy ay chance am. waaw Amadou Ba chance am mooy que euh, APR nee na moom mooy seen candidat Benno nee na seen euh, moom mooy seen candidat chance am aussi mooy que président bi nga xam ne mooy Macky Sall day jóge ci nguur gi nee na moom lay jàppale. donc loolu candidat quand boo amee sutien président de la république soutien parti ak coalition présidentielle loolu chance bu rëy la. Mhm. beneen chance bi aussi bon yàgg na ci nguur am na administration nekk na euh, tey ji premier ministre bon ku am euh, ubbeeti aussi am na ay relation yu bari yi nga xam ne am na ko muy voyage am bu mujj bi ci France wane na ko mu ngi euh, liggéey ak donc administrativement en tout cas ak soutien politique bi mu am loolu loolu chance bu rëy la mais loolu nag tekkiwul. que amul faiblesse am na quand li nga xam ne lii war na ko defar pour euh, euh, mu am euh, toutes ses chances pour gagner soit au premier tour wala au deuxième tour. alors est-ce que mën nañu xaari tamit élection bu transparente comme ni ko njiitu réew Macky Sall woote. waaw bu dee volonté politique moom muy majorité bi muy opposition ñëpp loolu la ñu laaj. élection bi le le na jaar yoon moo am euh, climat apaisé bañ a am xiiroo ak ŋaayoo mu am transparent loolu moom volonté la ñoom ñëpp loolu la ñu wax wante nag am na ay problème ci biir euh, processus bi ndax ci Sénat bi nuñ ko taxawalee nit ñi ànduñu ci ministre de l'intérieur bi itamit euh, ànduñu ak moom Euh, soo gisee aussi problème euh, Ousmane Sonko problème euh, conseil constitutionnel lan la nar a décider ci ci ñan ñoo nar a participer ci élection bi loolu yëpp day wane mën na am coow processus bi mën na jur coow et loolu nag tant que amul en tout toogaay pouvoir ak opposition pour ñu am consensus avant ñuy démarrer campagne électorale bi soo moytul du xelu opposition bi du dal. et xel opposition bu dalu euh, mën na indi toujours coow ak ay contentieux même euh, fii ak élection bi. Mamadou Sy Albert euh, jërëjëf may fàttali rek ne analyste politique nga en tout cas ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf Awa jërëjëf jërëjëf